jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo ngi leen nuyu di leen jaajëfal di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax di leen wax ne tey nag ñoo ngi ci émission mag bi nga xamante mooy jàmmaarloo su mu nee nag mbokk yi xel dem ci fans yi waaye bu mu nee jàmmaarloo dem ci ñaari mbër yi dugg ci digg géew bi di jëflante tey nag ma dal fi ñaari champion yoo xamante ni ay ndaanaan lañ def na lu ne ci làmb ndax su ma ñëwee sama sama sama côté droite maa fi am ki nga xamante ni mooy Angleterre Angleterre su mu nee bëri naa caaka fay rek loolu doon na palmarès su ma ñëwee sama gos maa ngi fi am ki nga xamante ni mooy Moustique mu si su ma nee bëri naa soq rek defe naa ne loolu tamit doy na palmarès tey ñoom ñaa ñoo war a jëflante ndax mu ci nuyu Ouzin production bu baax a baax moo taxawal boobu grand combat yaakaar naa ca arène nationale bii nga xamante ni moom la ñu jëm ca arène la tey nag ma bëgg leen fay daal bëgg waxtaan ak ñoom ci lu jot jàll ak bëgg waxtaan ak ñoom ci nga xamante nii moo jëm si seen diggante ñoom ñaar combat bi nga xamante ne ñoom ñaar war nañ ko jàmmaarloo ci arène national ma bàyyi la ñuy nuyoo ñu doo ko wéyal waxtaan wi Angale nuyu naa la. gannaaw bu ma sante yàlla julli si yonente bi gërëm sumay ñaari waajur maa ngi lay fay ousin mm-hmm. di siyaar waa wasaar yëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp doo nuyu sa waay di nuyu sama adversaire musique di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm ak tawféex mm-hmm. di ñaan ndam si kawam si kàttu na yàlla doole sëñ Babacar si musique nuyu naa la eh, Ouzin fay naa la di bëgg ñëpp ah mm-hmm. di nuyu waa Wasaare Lamb di nuyu Ouzin promoteur bi. Mm-hmm. di nuyu sama doom nday Ameth Diawéra bi ma àndal ak Pape Modou. Mm-hmm. yëpp. di tamit dañoo am naqar tey quoi sama benn xarit la yow yaayam wàññeeku. yàlla ko yàlla muy Abu Abu Bakari Ba. Mm-hmm. di ñaan yàlla yàlla ko xaare ko àjjana. sal xam yàgg say loxo wax dëgg yàlla waa yaaju yaaju baax loon vraiment. waaw am nañ tiis tey trop am nañ dëj. mais yàlla moo dogalee noonu. di baal ñëpp ak si koor gi muy waaj a jeex nii. ñaan ñëpp jàmm rek di ñuul sama adversaire. di ko ñaanal yàlla nag may ko wér ndax man ñi ma mujjee wëree yëpp dañuy dem ba si biir ne dañoo blessé. te nag waa Parcelles fan yii dañoo jël blessé bi de. <laughs> benn ñaar ñu ne mu am ma tànn bu wér ma am tan mu ñëw ma duma ko jàpp ko daan ko dem ñibbi yóbbu jaaree ndab bi. la ngay wax ci lool nee na lay ñaanal nga tane jàmm ba yegg si ci bés bi xaw ma nag loolu fan la ko teg wala lu mu ci jublu boobu. damay dolliwaat di santaat waa Parcelles. Mhm. waa Cambérène. di sant waa parcelle. Mm-hmm. waa Cambérène waa Cambérène 1 Cambérène 2. Mm-hmm. parcelle 1 ba 26 ku lim juum. di woo sama mbokk soosay nañ ma ñëw jàppale si combat bi. mais woote bi teel na. anglais woote bi na non mais lu dul ay mbokkam. <laughs> waaw en bëggoon nga ñëw ci moom li mu wax damay dellu soit fee damay dellu soit fee. waaw blessure yu am parcelle. Mm-hmm. parcelle ba ñu xamee parcelle ba léegi. c'est la première fois li di fa am. mais nag mais nag mais nag fa yàqoo dafa bëri. waaw mais loolu yëpp mbiru suñu borom euh, ak kii. Euh, Cheikh Tidiane Niang. waaw combat yi na mbiru suñu borom yàlla ay mbiram jàmmuñu si dara. dañ si sant yàlla bu baax di ñaan ñu blessé ñëpp wër ñëwaat si si kaw podium bi yàlla may leen. dara nee na nag yow mu ñaanal la jàmm ba nga bañ a blessé. non man bu soobee suñu borom gëm naa ne dinañ si àgg ak jàmm te yàlla na ma may ndam si kawam duma boobu mi wax day caaxaan rek man duma ku ñuy duma <laughs> na defaraat xelam. balaa balaa balaa balaa may ñëw ci loolu sax yow mii defe naa yaa ngi ci huit combats ah. huit combats deux défaites. six victoire ah, cinq cinq cinq victoire. Ah, ak benn deux défaites benn match nul. Caaka ah. Faye moo la daan. ak euh, Kaaw Cissé. Kaaw Cissé kan nga match nul la. Ngagne Diagne numéro deux. Ngagne Diagne numéro deux. yow yaa ngi ci ñaata combats. onze combats neuf victoires deux défaites. deux deux deux deux deux deux défaites. ak euh, neuf victoires. waaw kan ak kan moo la daan. man kii moo bi tonnerre 2 moo daan. tonnerre 2 bu Pikine ñoom ñoo bàyyi sax. de tonnerre bàyyeegul làmb de. tonnerre bàyyi man ma dégg bàyyi na yow tonnerre bàyyi ah. <laughs> làmb jooju pour daa bàyyi làmb sax. non bàyyiwul de c'est boo yee ko ñemewul nag. Ah, <laughs> mais Guiro day ko jël xaw ma nag lan la ci dégg ah. wala boog lu mu yaakaar ne. pour man daa bàyyi làmb sax damaa déggoon gars yi dafa mais nag su ma ñëwee su ma ñëwee yow ci sa carrière. Mhm. Euh, moustique dafa mel ni sa carrière dafa xaw a yéex parce que boo xoolee nga ne daan naa soq daan naa ñu bëree bëri. mais ba léegi daan Zambala waaw daan Zambala. waaw waaw mais la moo tax la moo tax carrière bi xaw a yéex. non lu tax carrière bi xaw a yéex am na tamit da ngay sant yàlla quoi. ndax mhm. ba ma bëree 2019 mille combat maag Boy Sine. après corona bee ñëw daan ay Boy Sine. bee ñëw xam nga. am fi ñaari yoon booy hmm, professeur Magne am na fi combat maag moom grand combat. mu mhm. dem ba combat de deux jours mu ne daa moo la bëri noiro. xam nga loolu day day noiro men bu kii bu bu tëkk dëkk town ok moom laa waroon mujjee bëreel moom tam mu ne daa blessé ma laa si mën ba pare am plus tamit mbay tamit dañ maa xaw a ragal kii normalement waruñoo bëri sax moo jël ci mais musique musique musique euh, euh, lan moo nekk ci yow wala lan moo kii ci yow ba mbëy di la ragal xam nga la moo nekk si man su ma ñëwee esat hmm. nos nationale dafa maa jege nee naan ba ñuy teg xeer bi première pierre bi man maa ngi demoon naa foofu hmm. ma Macky Sall tege benn deuxième bi man la. jege ma loolu caare yi arène nationale maa jege te su ma ñëwee si làmb maay dirigé. boo ñëwee ci làmb yaay làmb soo ñëwee ba si diggee su arbitre ne piip lu maay xool nu foo neex ma daane la fa. sans dépend nag nga taxaw wala nga daw loolu moom yàlla defal na ko. est-ce que est-ce que est dina la daw. wala est-ce que ah. dina parce que anglais man anglais dafa mel ni rëbb boo teg la moom du puus tant que moom du ko reculer jëm ci ginnaaw. Oh, ba jour ba xam naa dina daw de waqet. dina daw moom mii moom dina daw de. naa ko duma dumay métti sax. engrais di nga teggal tànk musique. ah wax dëgg yàlla ko dem ba bëri huit combat musoo arrière. combat yi nga ñàkk yëpp ñàkk arrière boo la ko ñàkkloo. Mhm. kon kooku doo dem ba toll fii naan da ngay arrière. ñu lay doomu soosa lañ. mais nag sa waaye nee na Casamance lañ neexatoo ñeme de. ñun am na loo xam bu ñu ko defee bu ñu delloo Casamance dañ ñuy dañ dañ naan da ngeen génn xeet. wa soose xamul ñun xamuñu dellu ginnaaw ah Ouzin wax baaxul nañ bàyyi ba jëf-jëf jot jëf. non mais nag tey faw ngeen wax. parce que parce que fii fii moom daanaka wax fi andi. fii moom wax moo mais sa diggante kii laa bëgg a xam lan nga ci nawet parce que yow tamit say combat dafay xaw yéex lool lool boo xoolee bi ñu fi bëree euh, màjji màjji ñaata at la. waaw ah, mais xam nga le 8 mars maa waroon bëreeg booy remarque. waaw par yàlla dogal lu muy dogal si moom. mu neen daa blessé. Mm-hmm. ma xëy ñaanal mu wër xëy na bu wëree tamit su ma jógee si lii su ma dumee sa waaye daan ko jël ko incha allah man xam nga comme làmb moo ñu moo moo ñu fi ba. mais kii mën nga koo duma. waaw Ouzin. non déet dama la kii laa musique est-ce que mën nga koo duma. ñaata mbër laa fi duma ñoo ëpp doole fuuf. non mais ñooñu ak musique duñ benn nag angale. duñ benn de. <laughs> loolu moom maa la koy wax tey <laughs> waaw. bu soobee suñu suñu borom. si kàttanu yàlla ak dooleel. sëñ non mais man xam la moo ci xaw a jaaxal. lu tax nangu leen waxante wala na ngeen nangoo xoolante. da nga may déglu kii bu arbitre soufflé. Mhm. xaw man du ma xaar. man amul benn mbër boo xam dama lay xaar ngaan da nga may diriger di jéem a ut ay yooyu jéem a teg di xool lu neex man soxlawu ma lu neex. mais nag kii mais na kii ni mu def parcelle yëpp. bàyyi ma nga naan ma mu def parcelle. yàlla moo dogal mu am ma waroon am ndam si ñoom na ko dañ ko xëy yéen. yoonam mais boo nee boo nee boo laay bëreel te musique daan soq loolu du xawam muy def sa xel. non non non non man may wax waxu soxla yi ñoom Pagos ci ki dooroon bombardier ñu soxla ñooñu. ajani ko bi waa écor écran yi soxla ñooñu nga xam ay ay kii. kon kii daal fi mu toll nii bu ma ko déggee mooy maanaam da nga boole woo ko sax sa programme. da ngay caaxaan kii teewuma nelaw. kii arut bee fi bàyyi bu soobee suñu borom fii laa la ko waxee si kàttanu yàlla ak doole ak sëñ Babacar si weeru koor gi ñu ne bu arut suuflee fële laa koy sànni bu taxee naa ko dóor mu daw man naa fi nekk di négocier ak ay mbër waaye bu ma tooñ waay. <laughs> kii du négocier ak yow de. <laughs> négocier moom ngeen koy wax ak xale. kii ñoo bëri ñoo gën a tàng ñu bëril fuuf. non mais est-ce que bokk nañ nag. parce que parce que parce que boo xoolee boo ko xoolee moom confiance xam nga. Mhm. tamit nag neexul ñeme de. kii xeex bu muy xeex xam nga xeexal la xeex dóoral mu dóor. xeexu xeex normal la kii mënul dóor coup yow nag daa mel ni jàng. non kii daa mën bu jub mënul nekk. coup direct bu jub ko dóoral mu dóor lay def. day xàcc dóor di bàyyi nga dóor moom noonu lay def quoi xam nga yooyu coup yooyu su la dalee yow sax mën na maa dal ma daanu. Mhm. mais néewul dafa mën a xeex. xeex dafa am normal. garde teg droit gauche mhm. garde normal ak fausse garde Mm-hmm. loolu yëpp xamu ko si loolu si bëre. xamul loolu. non daa xam loolu daa xam garde normal ak fausse garde. ak garde bi fii lay nekk di ak sore rek sànq maa ngi dégg mu naan Casamance barki Seexu Tidiane. barki Seexu Tidiane man maa ngi dëkk Kolda maa ngi dëkk Sandinière dëkk Sédhiou. Sédhiou Goudomp. man soo paasee Medina dëkk. dëkk bu ñu kii ëpp ma fa cër man Folokunda laa Zilbale Ama samay mbokk lañ pur et dur Folokunda Casamance saa dëkk dëkk bu ñu naan Guédiawaye bookar ku lu kuy pël maa ngi lay woo ak soose yi ñëpp na am na ay sëriñ yoo xam ne ay soose la ñu may ñaanal ah mais en plus voilà man am dara ñu man samay darapo samay darapo samay man saa yi ma ko jëlee saa yi ma daanee suñu koñ kër soose lay fanaan drapeau yi ba léegi fa lay nekk. waaw léegi laaxal soose. non dégguma soose mais dégg naa pël. wax soose mais soose sama mbokk la ay mbokk lañ. soose dégguñu olof. non c'est-à-dire man du waxuma la soose man pël laa mais soose suñu mbokk lañ ñoom Lamine soose ñoom Sire soose. léegi lan moo la dugal ci kii. parce que boo xoolee defe naa ne xaw leen sax bokk yoon mais la moo dugal ci moom. ah jërëjëf xam nga maa kii bokkuñu yoon moom dëgg la moom mag si moom njëkk a bëri fuuf. moo la njëkk a bëri. waaw kii kii booy bëre bëriwul bëre. day wax lu ko neex rek. yow ban année commencé bëre. day wax lu ko neex rek. maanaam maanaam 2013 a commencé bëre. yow seetaan nga moom mooy bëre. moom mooy bëre mbapat. moom mi man yow seetaan nga loolu. kon hmm. xam nga kañ laa commencé bëre. ndax naa si wala li waral ma yéex a bëre. ni may actionné la su ma ñëwee si làmb du ma xaar damay def li may war a def dem sama yoon te mbër yi fii léegi bu fekkee noonu da ngay jëflanteel dañ lay moytu comprendre nga ñu lay jox ay adversaire yàlla dogal yi ñuy dem ba si biir mu yàqu kon dama si sant yàlla daal dama si sant yàlla xëy na lii la suñu borom nam suñu waaw di si dolli sant yàlla bu baax xëy na lii ñëw mooy gën fuuf ah yéen ñaar defe naa ne bu leen bëri dee daw bu leen boolee jaadu na ma ciy jaajëfal Ousin bu baax baax ndax di ko wax ne combat bi mu taxawal moom defe naa ne combat du ko dàq ndax am na yeneen combat yu nekk ci biir ci diggante Petit Lo ak ki nga xamante ni mooy Garga bi nekk kii Balla Gaye defe naa ne ay combat yu bari ñoo ngi ci biir yoo xam te ne ay combat yu neex la kii bi ñu la ko proposé amoo ci jiixi jaaxa ma toog. non amoo ci jiixi jaaxa kii war nga bëri ak moom mais damaa dem ba si biir sama kosu. ak sama staff waxtaan ne kooku booba tey yaa ngi am ay combat gars yi di daw di daw jëlal ki nga daan ko tegaat bu sa yoon. kon la da nga ko da nga ko bëgg a jël fël ko rek. fël ko bi. ba pare su ma ko daanee faa séeri ngañ laa tuddee drapeau bi. kan sama benn xarit bu am doom boo xam ne day ngénte la 15. Mhm. moom laa ko tuddee moom laa koy yóbbul. ah da ngay da ngay da ngay da ngay bëri la la 15 mu ngi xew te koy takk tamit damaa bëri booy siin ñu daan ko mu teg une ñu takk ji ko waaw waaw waaw. <laughs> boo ko daanaatee delluwaat ci ngénte ba encore. jërëjëf ba pare tuddee ko drapeau bi. <laughs> waa de loxoy neen ngay delloo si ngénte ba. ah wax nga yaay yàlla wala yaay loxoy neen ak nakaar nga fay delloo bu soobee yàlla. ba jour mais bi la proposé musique amoo ci jiixi jaaxane bàyyi ma kii parce que tamit nag loo ci mënu ci mën a wax angale ba wax ko ci musique ndaanaan la. c'est Ouzin. man dama bëgg dama bëgg man soxoruma. Mhm. soxoruma. gis nga nit bu defee dara. waaw da nga ko xëy nangul. Mm-hmm. musique def na dara def na dara loolu kenn werantewu ko mais comme ñu ma koy jox may am lu may. laal laal mais lu xaw tuuti. sax non non non non non non ku si wut lu nooy bu yeboo nga wut sa basan xool fu ker gi sedd fu garab gi ne fu garab gi gën a seddee nga tëdd foofu. waaw. làmb mënul nooy mënul neex foo góor la. instant bi nii ñaata ñaata ñaata ñaata séance d'entraînement ngay def que euh, ci koor lañ nekk te defe naa dañuy génn ci koor seen combat bi yëg. man su ma jógee fii liggéey moo tax sànq li nga xaw a yéex noonu arrangé wu su ma jógee fii nii damay liggéey. benn hmm. séance lay entraîné. bi nii. benn séance. lu tax benn séance. ñun lu ñu lu am dañ ko doonu maanaam doole dañ ko doonu si deret la dañ ko doolu doonu suñu maam. doon ko suñuy waajur. bu ñu entraîné dañuy am doole bu ñu entraîné wul dañuy am doole bu ñuy nelaw dañuy am doole bu ñu toogee si kër gi dañuy am doole ñun la neex ñi entraîné nii rek di jox làmb ciram. mais lu ñu def dañuy am doole. kon soxlawul ñiy fërti fërti di teg si fitna suñu bopp di dugg sa nakandul noonu dañ man damay liggéey nii mu wàccee soxna si tegal ma ndog ma ndog ba suur maa ngi santaale sama soxna bu baax di ko gërëm di sant samay waajur ak samay goro ma ndogu ba suur tëdd ba dal dem entraîné. kii de amul benn pression ci làmb <laughs> amul benn pression ci làmb ji dégg na bu nalawee day am doole. bu toogee day am doole. bu yeewoo day am doole bu entraîné day am doole. waaw loolu moom moom la mais ñun tamit ñun tamit nit yàq lañ mais ñun dañuy ñoo judduwaale ak doole mais dañuy entraîné dañuy teg lu métti. ñaata séance ngay def. non benn séance tax damay woor man damay woor. Mm-hmm. benn séance su ma ndogoo pare dem entraînement. ok benn séance daal na damay woor. waaw ndax ñun moom yàllaa ñu sàq ñu nekk ay doomu jullit xam nga yàlla sàqee ñu pour ñuy woor. kon mm-hmm. ñun amul lu dul weeru koor. te weeru koor tamit weeru tiyaaba la weeru profito la. tiyaaba boo def ñu yokkal la ko kon yow war ngaa mun a woor quoi. dama xam ne ñàkk bañ a woor lu mu lay yàqal daa bëri. dëgg kii daal Zouba maa ngi koy ñaan mu ànd nag ay nit nag. am na foofu laa doon foofu a ñëw. fa laa doon bëgg ñëw fa mobilisation. parce que tey ku ne gis na ne Ouzin promoteur bu bees la. Hmm. benn sponsor nekk ko ci ginnaawam. mu jël leen ngeen ak ay xale mu boole leen ci benn journée. Hmm. wàllu mobilisation fan ngeen ci toll ak lan ngeen ci waajal. non wàllu mobilisation moom ñoo ngi koy préparé bu baax a baax a baax a baax. Hmm. ndax gaa yaa ngi commencé jaay bii bii commencé naa jar bu am na ñoo xam ne sax dañ ñëw di su Korité passé dañ ñëw jënd ay bolok. Mhm. di sant Cheikh Diop moom tamit booy Angleterre moo ngi Angleterre quoi Cheikh Diop sant baax di ko gërëm gis naa affaire yi moo si commencé jàpp bu baax a baax. Mhm. ak waa Thiaro yëpp. Mhm. ñoo ngi bu baax a baax a baax a baax di woo nag ay sey nekk zone 5 yëpp bàyyiwuma kenn ku lim juum ak zone 3 ak zone 6 ñoom ñëpp maa leen di woo si combat bii di leen wax seen bis nag seen bisu doom la. Mhm. grand combat laay bëri ma Angleterre nii di ñaan yàlla ndab bu rëy si kawam si barke Seexu Tijaan. nga woo waa Casamance ñu jàpp tànk surtout ak loxo yi nag. kala bi bi bi mbii waa Casamance bi domoon baadiraw mon man Moustapha min Moustapha min musik mais si pere oɗo oh, oh. Angleterre jaggode mhm. hen ko feewi mi jaggamo mi mi fiyomo mi haa mi yaha lawol makko mhm. Diallo. wàllu mobilisation fan mobilisation moom amul lenn lu ma si conseil parce que Ousin bu ma tëggee tëggaat ma rek topp ma di ma tëgg. Mhm. am na lu tax. Mhm. am na lu tax quoi. donc amal naa ko njariñ. non bi. déglu rek. amal naa ko njariñ si wàllu mobilisation. Mhm. te lépp lu ma jox si ticket dama koy jaay. comprendre nga. te combat bi lay gën a si lay si lay gën a confirmer parce que am naa ñoo xamante ne tey jii ku si mel ne sama yaay. mais Aïda bu sëñ saaliw xam nga ko déggul xam nga ko mm-hmm. kooku moom waxuma la dara partout dans le monde lay dimbali waate kooku day dimbali ba dimbali ñi nga xamante ne xamu leen mm-hmm. kooku lu mu liggéey si jaam ñi la koy defaat kooku moo jël combat bi en charge ne ma doom demal nga entraîné defal li nga war a def bu soobee yàlla bu ñaan jotee dinaa la ñaanal nga am ndam mm-hmm. bu bu jàppale jotee dinaa la jàppale lépp lu si war si combat bi dinaa wax si def kooku ku nekk sa ginnaaw da ngay jaaxle. waaw ah, xam nga maire boobu. mais nag musique day mobiliser de. déggoo lu mu laax man su ma man dèjà su ma woowee sama directeur rek Omar Bun Xataab Silla Dakar Dem su ma ko woowee kooku wax ko bisu Dem Dëkk su ma neexee cinquante la ma siy jox di ko woo. di woo sama sama sama sama chef ndeene di woo chef Laman di woo chef Assane di woo waa Dakar Dem Dikk bi yëpp di woo directeur di baax ñooñu bu ñëwee dañoo xaj arrêt national. waaw waaw waa parcelle lan nga leen di waa parcelle nga leen di damay woo surtout waa dañoo dañuy namm sa bés. déggoo lu mu booy fu mu toll nii man dam leen ne bu mu dégg benn bruit parce que ko si koor lañ nekk. mais bu ñuy yëngal nañ bàyyi ba nañ <laughs> gi passé. parce que xam rek koor dafa metti te xam mag ñi dañuy toog di dalloog yooyu te booy xam rek. booy durant deux mois combat dañuy asiko chaque jour di yëngal koñ ba parce que booy xama rek ay ndaysaan dañ ma gëm mhm. dañ ma gëm di profito di sant waa jàkkaarloo booy sama booy waa feeraay waa studio mhm. waa Intercat di profito di moom a solal lii noobul mhm. waaw waaw après doom day su ma la daanee naa la commandel benn incha allah mu nga wax bu sooy joxe sax nga àndaale teel ma laa jox nag. benn bu saf saf <laughs> teel ma jox nag. wuyul <laughs> wuyul li muy wax. déggoo fi déggoo muy waxee de. dama la déggoo na su nekkee yéene nga ma ko. waaw su nekkee gëm nga sëñ Babacar si. sëñ Babacar si laa gëm. jërëjëf si barke sëñ Babacar si. barke sëñ dinaa la daan joxal may. non waxuma la daan yow soo ñëw stade la la 14 soo ñëwee stade ñëwal ba si man ne ma mu sigee séeréer bàyyi nii. dinaa la daan bañ daan loolu lay problème loolu laay daan ba par ko bu soobee ko foofu promoteur nañu wax di tourné. di profito di woo suma xarit suma doomu nday Garga Mbossé. États-Unis Rabdan États-Unis jëf jël États-Unis 14 France. Mhm. Ah? di mhm. woo suma rakala France. Mhm. di woo Lamine Ndiaye. Italie Boga Ndiaye Italie Thierno Sila Italie Khalifa Baara Italie mhm. di woo sama tete France di woo ñi nga xamante ne dañuy sonn si man Cambérène 1 ba 26 bàyyi ma fenn di woo sama mbokk soosay mbaa di maninkool mbal kontaan na mbal jay la mhm. lafta alien so la fan-fan fël si ñim boy atoo Moustapha Diaw sa boy incha allah alin so duwa la karantaba kata jigéen soor karantaba bunkiling kata gudompo simbandi braso kata sejo marsa sum tanjem kata uh, uh, jeli uh, ato ɗum fan kata mbe satel ɓeela kumandi la yana uh, ñi mu tañi ñaaboy inchallah te mbaa boy la sax inchallah ñi ñi ñi nga fi lim ñëpp lan nga bëgg ñu defal ko ci musique. lan la nit amul lu dul mbokkam nit amul lu boo bàyyee say mbokk mhm. foo dem fekk fu gars yi toog seen i mbokk te nit amul lu dul mbokk mbokk dafa fort balaa xam ne am balaa nga xam ne am ngay mbokk rek nga tool si ay nga am nga am soxla wala nga toll am foo toll rek nga xam njëriñu mbokk mbokk ay lépp yàlla nañ yàlla jubóol lan ngay yóbbante lan ngay yóbbante di ko ñaanal jàmm rek di ko ñaanal jàmm parce que ay lañ te jullit la mooy jullit hmm. di ko ñaanal jàmm yéene ko jàmm yàlla defal ko jàmm may ko wér ak wér la man daan ko jël bu rëy loolu rek laa xëy ñaanal. dama la sëñ Babacar si. xeex bi loo ko ci wax ci moom. no xeex parce que nee na nee na comme comme que mënuloo xeex. Ah. ay coupé di ngay sànnee ay dóor mu dóor te boo ko dóoree bu la remiser leneen mën a cee xew lan nga koy mm. wax ci loolu. moom bu bëggee sax bu ñu bu ñu jàppante nañu xeex ba pare doo ko bëri. déet. kii naa jàppanteeg moom naa jàppanteeg di ñàkk sama bopp fay non mais nag mais nag musique li nga wax est-ce que stratégie ngay teg a xeex ak moom moom. non non xeex ak man kii fu mu laal sama yaram dama koy daan yaramam su laalee sama yaram mooy daan naa ko loolu yàlla may dama su ma déggee ni nga waxee mooy maanaam sa waaye dara mënu ko. non mën na ndax moom. non déet déet non parce que parce que nee nga doo doo doo fi doo fi doo fi da xeex ak moom te bu la jàppee nga daan ko. non c'est-à-dire xam nga tey jii kenn wax mu nit mënul dara ndax nekk moom lu mu cuune cuune dëgg la nag mënul bëre nag mais yow lu mu cuune cuune cuune dina am loo mun fort boo mën. mënul bëre. non dama ko dégg si gars yi rek gars yi am na doole affaire yooyu mais man damaa jàpp ne moom mbër ku may rek mën nga bëre quoi vraiment ndax soo bëriwul sax maa lay mais mënul mënul mën bëre ci sa kanam moom. non loolu moom yàlla dogalu ko moom moom nee naa daa am doole mais maa ko daa ko bëre te xam naa ëpp ma doole ñaari yow ñu may kontaagal du ko kontaag ñu man lu ma leer na ma. combat bi sax gars yi dañuy wax ni entraînement entraînement moom fii contact laa ci def chaque jour contact rek. contact kese. contact rek yow xam naa damay contact xool baax oh. rek laa def. waaw combat contact damay contact vingt minutes ñu ñëwaat dox une minute ñëwaat permanent dama contact ma contactaat ki combat bi su ko neexee sax ñu bëri une heure mais du ma ko nangul. pirip dip day songu tip ma dóor ko mu daal. musique musique musique musique yow. la maa dégg sànq muy woote naan xaw ma ay Dakar dem dikk moom mu amul ay xam nga am na ñu koy jàppale xam nga man dama am man am naa ay supporters macha allah. Mm-hmm. yaa ma dégg am naa ñu may am na ay supporters macha allah mais moom am na ay moom am na ñu mais amul supporters loolooy problème bi. waaw am na ñu koy jël biir mais amul ñu koy seet ñu koy seetaan yi ndax moom. bëriwul mbapat tojul mbapat loolooy problème bi. ay réew la may def sax. noo mënoo bëre. xam kii ay ree la la may def xam lu tax mu def may mu def may ree ku mënul bëre esel du def esel bi esel boobu noonu ba yegg ki dafa soxor. doo ko limal sa ab sa at. non non c'est pas la peine ñu guddeel jël man damay liggéey nii. <laughs> non eh, damay liggéey nii. sa eh, waay eh, li mu wax nii dafa soxor non barke Seexu Tijaan soxoruma yàlla yàlla yóbbu dina xam ndax mën naa bëre wala mënuñu mënuma bëre. non soxoruma. lu muy wax lu may woote moom moom moom ñu muy woote na woo ñu woo bu fekkee amul ñu mu woo ma abal ko ñu mu woo. waaw abal ma abal ma abal ma abal abal ma ñàkk di di teel mais nag mais nag kii kii kii moom angale kii seetaan na la parce que nee na mënuloo bëre. waaw d'accord mënuma ma bëre mais buñ si yàlla yóbbeeg jaam dina xam ne mën naa bëre wala ba pare nee na dégg na gars yi doole kese nga am déedéet moom waxama lay wax bu mu mu bu mu bu mu waaw bu mu baaxaarloo gars yi si weeru koor lañ ne na wax waxam rek mais na xam ne man am naa ñu ma jàppale man da man am naa wóor laa teg sama tànk am na ñoo xamante ne su ma leen woowee dañuy ñëw su ma leen woowul dañuy ñëw dafa rafet ma leen di woo te fu may liggéey am naa droit woo leen waa dak Omar bun Xataab mooy sama directeur. en daal en tout cas daal loo loo doon liggéey benn bi boo nga def ko ñett. déggoo lum la gisoo boo ngi lay commencé loo xuuxal ma doon liggéey du ma dara. Ah. lu ma doon liggéey du ma si dara xam lu tax du ma dara. <laughs> dama gëm li ne si man. lu ma suñu borom may dama ko doyloo dama ko gëm. kon xeebu ma ko du ma ko xeeb. te damay jox koor cëram. du ma fi nekk di fërti fërti fërti fërti bu aar bi lay comprendre na taxaw foofu naan mënuma bëre ay ay su lu ma laal si yaramam bàyyil bu boobu. waaw waaw lu ma laal si yaramam. yow la dëgër mooy seen yaay di woo sama gars yëpp. <laughs> def eh, su ñëwee bu ci dugal la dëgër yaa ak moom. non la dëgër sama waay la la dëgër. non sama waay la la dëgër nit ku baax la. teraanga daf maa mos a defal teraanga dama doon bëre mbapat ñu xaajoon ma sémmiñ ci bopp. sémmiñ. barke yonent bi kii du ko mos a fàtte. ki ma la demee woon noonu ba ñu. boobu ma fekk ko koñam Malika. général Malika fekk ko koñam daan ko ñetti yoon ngaa yàq làmb ji. ci ci ci ci même làmb yi nga ko daan ñetti yoon. ñetti yoon ndekete ko doon arbitre ñoo bokk écurie ñoom ñaar. làmb làmb xaw a doy waar nii rek xam nga léegi làmb ji moom léegi comédien la jël teg leen tëggal làmb bàyyi fi mbëri looloo tax mais kii yow mun nga bëre macha allah dëgg la waaye xaaral ma. déedéet non non non daa mer daa mer ma neexal wax léegi munul bëre. xeex bi jaarul yoon peut ko kii waa. non c'est a mer nag a neex. non baa ma neexal ko am problème ko quoi. yow dëgg la mun nga bëre am nga doole. mais ce jour là ñëwul ma jàpp rek daal la ngir yàlla rek yow man nga ne ko yow kii watu yàlla yow dëgg la MMA nga bëgg kay yow ku dóor Bombardier nga daan moom nga bëgg a bëre yàlla nga bëre moom du ma ko mu daan la ma daan rek. nga dem yàlla si yàlla yóbbu ak jàmm si kàttu. te nga aal aal ma nag ñi ngay woo nii ñu may ma ñu jàppale ma su combat bi jeexee. waaw yow dama seetlu moom depuis keroog. mooy woo ah Italie Italie sax dafa siisu. nga yàlla. da lay boole ak doomu aadama yoo xamante ne say nit lañ bu mu siisu na gëm yàlla na gëm yàlla. Mhm. man yàlla dafa maa boole ak ay nit. dama leen di woo ñoom Boga Ndiaye Italie Thierno Silla ñooñu xoolal bu ma bëree bu ma bëriwul yëpp dañ ciy jàpp kon buñ bu ma tax bu ma bu ma taxawee bu ma bu ma taxawee télé wala site santuma leen woowuma leen gorewu ma man dama gore sama nitu démbo yi mu leen mës a fàtte man noonu laa mel moo tax su ma ma toog damay woo sama nitu démbo hmm. parce que nit balaa balaa balaa ngeen di tàggatoo sax dafa ne promoteur bi yegsi na léegi. Hmm. ma bàyyi ko mu ñëw sànni ci kàddu ma jox la ngeen tàggatoo Ouzin ñëwul kaay ñëwul jaay rek. grand combat bi Khalil ñëwal Ousseynou ngi nii moo moo taxawal lii defe naa ne euh, boole na ñaar ñoo xamante ni ay xale lañu parce que bu jógee Thiaroye jëlee fa mbër ñoo Parcelles am koo xamante ni jëlee na ko fa dama leen di bàyyi rek moom mu sànni quelque kàddu ma bàyyi mbër ñu tàggatoo. waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu waa làmb yëpp di nuyu Sénégal di nuyu axlu làmb di nuyu la yow Ousseynou sama turandoo. Mm-hmm. di nuyu musique di nuyu Angleterre ak techniciens yi fi nekk yëpp. maa ngi leen di leen ziar bu baax waaw. Euh, combat bi bi de wax dëgg yàlla xëy na dama ne ci man na war a mën a sottee rek. Mm-hmm. parce que anglais sama sama xarit la. Euh, musique mi tamit vraiment ma déggante ku ñu wax à Cissé mu nekk sama manager moom it. Mm-hmm. bon anglais daan nañ ko wutal wutal nañ ko lu mat six adversaire mm-hmm. sottiwul mais bi ñu woowee musique rek mu nangu jël Angleterre. loolu itam dañ ko ci gërëm bu baax mu nekk grand champion. Mm-hmm. bi ma ko taxawalee nag vraiment gis naa ñu ci bari li ma ci félicité di ma wax ne ma tëgg nga combat bu neex. combat mm-hmm. combat nga xamante ni vraiment ay ay ñaari mbër yi am jom yi nga xamante ni du ñu yàq làmb. Mm-hmm. nangoo mobiliser. man leen xëy na làmb ku nekk wërsëgam ci biir làmb rek xëy na lii sama wërsëg la moo tax ma organiser ko damay ñaan yàlla nag fii bala 14 ñoom ñaan ñëpp ñu am wér. xam nga am tal ak fekke ak ñun ñii ñëpp. ñu bëree ko ci jàmm bëree ko ci fair play. defe naa ne nag du du combat bi moo ci nekk Petit ak ak garga bu écurie Balla Gaye ak yeneen combat yi ñu toftal. waaw combat bi Petit mooy bëre spécial bi moom ak bébé garga. Mhm. yaa xam bawol tamit mi ngi ci ak ki nga xamante ne mooy Ramdan. Mhm. vraiment ak euh, combat yu bari yoo xamante ni ñi ngi ci biir ko ñi ngi ci biir journée bi. Mhm. loolu nag vraiment bu demee boo yëpp am comme li ma wax rek dama koy may à Cissé parce que yu ci bari daanaka moo ko génnee. Hmm. pour ñu war ko mën a ficeler le 14. kon combat yi la le le le 14 incha allah vraiment ku bëgg combat bu neex daal vraiment journée bu am solo. boo ñëwee arène nationale di nga ko fekk lu rafet daal incha allah. incha allah kontaan nañ ci bu baax a baax. jërëjëf. Euh, gis ngeen gis ngeen ni ko promoteur waxee fi mu toll nii kàddu yu mujj yi lan la. waaw doole sant yàlla rek. di gërëm di sant samay ñaari waajur parce que nit amul lu lay waajuram. Hmm. ñoo sonn si man. di ñaan sama yéene si ñoom yàlla may ma maagale koog jàmm di woo waa parcelle 1 ba 26 unité 3 bi ma dëkk di sant suma rakk bi fi jóge léegi Manuel. Mm-hmm. di sant sama booy yëpp ñoom Talla Gaynde di woo Talla Gaynde Ñambur suma grand di woo Dolphe Baye Pël Malick mbay super jamono maa ngi woo ñëpp woo Boga Ndiaye Lamine Ndiaye Silla Italie woo ñëpp daal ñu ñëw jàpp ci combat parcelle 1 ba 26. Mm-hmm. di woowaat suma yaay mère Aida bu sëñ Saaliw borom ñaan yi maa ngi koy woo bu baax na yokk ñaan yi jënd si tikey waaw ma daan sa waay jël bu rëy bu amul benn werante si kàttanu yàlla ak doole sëñ Babacar si. kàddu yi. kàddu mujj yi moom moom damaa dégg sànq moom sama waa Italie damay mer lan laa siy mer. xëy na peut dafa jàppale moo jàppale. maa ngi ñaan yàlla su combat bi su jeexee rek da nga bëggoon États-Unis États-Unis c'est waaw di woo ñëpp nag di waa Thiaré yëpp. Hmm. di woo yi ASC yi ñëpp xam nañ man penc laa dëkk mais ASC yëpp mooy supporté ndox mi. Hmm. Rakkaaju Kaani gi Daaru Salaam Ziyaade sant yàlla Kulim Dioum olympique comprendre guy gi ñoom ñëpp dañ may supporté ndax man man doomu gox laa man di woo nag monsieur le maire hmm. di ko woo ak jabaram Yacine Coulibaly di woo Mati Diouf Séeri Assane. Mhm. di woo Tànday Mbow di ko gis naa ñaani ndax man sax en saa yi ma jógee entraînement fa laay reeree kër Tànday Mbow. Mhm. di waa Thiarou yëpp ku lim jum waa Pikine sama waa kër maam ñoom ñëpp maa ngi woo si combat bi ñu ñëw waa Thiarou nag nañ xam ne am nañ combat. Mhm. na ñëpp ñëw ndax kii daf ñëw ci teraanga promoteur bi ndax promoteur bu bees moom suy tëggu combat moom. mu ñëw def def la grand combat kon war nga kaa mën a jàppale quoi. Mhm. ay billets yi li mu la jox nga jëm fexe kaa jaay. man de loolu si loolu laay veillé nii ba tey na billet yi gaaw jeex ma laajal keneen billet. di woo ñëpp nag di sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen wax nag jour combat bi la 14 na waa caaree teel a dem ma jàpp sa waaye duma ko daan ko nee daf may may yéene na ko àndaale nag la 14 bu ko fàtte dégg nga. balaa ngeen a bëgg mu teel la ko. waaw ak maire Baara Gueye si combat bi Modou Gueye maa ngi si combat bi. Hmm. surtout maa Sédhié. maa ngi koy wo si combat bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax wax ne si jàpp bu baax a baax a baax a baax a baax waaw incha allah. di profito di woo sama doomu nday directeur stade Amadou bari xalifa Gueye di ko woo si combat bi mu ñëw jàpp si daan na si jàpp na ñëw jàppaat di woo Amène Ndiaye monsieur le maire di ko woo di sant sama coach Kaare suñu président écrit Cheikh Thiam di woo Zos si combat bi. maa ngi woo ñëpp. parcelle en 26. yow foo ne équipe Bathie Seras. non école de lutte Jimbori si ñoom Bébé Saloum. ok. Mhm. doo woo kii euh, Diouf. <laughs> Cheikh Diouf sama doomu ndey pourtant moom woo léegi léegi téléphone. Euh. maa ngi koy woo Cheikh Diouf moom. combat bi ci lu mbokk la quoi. su euh. ma moom ma ko gën a jël au sérieux sax. man ngi si woo bu baax a baax di sant suma soxna bu baax. gis ngeen mbokk yi lay demee ci jàmmaarloo lii la fi ousin teg mu nekk grand combat bi di wax gars yi ne nañ ko waaye ndax bés bu neex la am na yeneen combat yoo xamante ni moo ngi ci biir di jox dig daje beneen jàmmaarloo ak yeneen bët jaa ngeen jëf.